waaw loolu dëgg la comme ni nga ko xamee euh, dañ fi ñëwoon tey ngir xool si garage boo maraîcher euh, ci yanam anam la nit ñi di demeek dikk waaye tamit waxtaan ak acteurs yi acteurs yi ñu fi fekk wax fa dëgg yàlla euh, dalal nañ ñu ci anam yi mu gën a rafetee waxtaan ak ñun ci waxtaan bu mucc ay ñu leen ciy jaajëfal te xam na ne ñi waxtaan ak ñun ay responsable lañu ñi waxtaan ak ñun xam nañu bu baax luy xew fii xam nañu seen liggéey ci gàttal moo xam ki nga xam ne moom mooy gérer gare bi moo xam ki nga xam ne moo jiite transporteurs yi waaye moo xam ki nga xam ne moo jiite chauffeurs yi amal nañu ay waxtaan xam nañu jafe-jafe yi nga xam ne am nañu ko waaye waxtaan nañu ñoom ci li jiitu mooy euh, paas yi nga xam ne yokk nañ ko ci anam yu doy waa xam nga euh, dama ko doon wax sànq ma ne ko bu ñu jékki woon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 ñett lekk lu daganul la ñun ñëpp ay jullit lañ xam nañ ne ñii ñëw fii yàgg naa fi ñëw man di jël euh, set place ak minibus di dem Jolof parce que loolu laa tolloo woon nag sama poos foofu la tolloon donc ñii ñëw fii ñu néew doole lañ bu ñu ñëwee ñu wax leen yenn yi dinañ ko fay ak xol bu tàng ndax ñàkk pexe moo tax moo appelé leen à la responsabilité woo leen ñoom ñi waxtaan seen biir delloo si waat tarif yi fa mu nekkoon ma leen di déglu fii ak suba ngir ñu revenir leneen li nga xam ne am na ci solo mooy ñenn ci ñoom ñi ngi fii ma man leen a tudd mi ki nga xam ne ci boppam moo jiite transporteurs yi ndax yor na fi otoom yor fi gaara euh, garage moom du yokkul fifteen mi góor gi Diop mi dërëm yokku ko doxantu naa léegi ba ci garage Jolof ma fekk fa chauffeur bu ñuy wax Balla Ndaw yàpp na kaaram ba mu fees mu ne ma laajal ku la neex yokku ci dërëm kon ñoom xam na ne yokk gi du yoon xam nañ ne aussi am na mën na nekk ngir bañ a yokk benn dërëm ci période tabaski wala màggal ak lu ni mel. li dañuy wax ne rek buñ leen waxee ne fii kenn du fi yokk dañuy génn ci biti daal di yabee foofa def maraudage foofu tamit nag euh, li ma ci bëggoon a wax mooy askan wi tamit foog ñu xam luñ bëgg booy jël oto pour tukki da ngay ñëw ci garage.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 wala mën a wàcc fii dugg ci teer dem wala mën a jël bus dem wala mën a jël taxi dem c'est pour que ñu organiser transport ñëpp di ñëw fii di mën a dem di dikk ñu mën a am contrôle ci kan ak dem di dikk ndax tey oto bu fi quitté xam nañ ko euh, euh, euh, nombre de voyageurs yu dem xam nañ ko statistique yëpp a fi question de sécurité sax publique la mais aussi sécurité routière ndax am na fi euh, système de centre contrôle technique bu ñu fi bëgg def ci ci ci sortie bi euh, texte yi dinañu ko xoolaat incha allahu rabbi waaye fii ñu toll nii li ne këtt ne jon mooy tabaski gii ñu jëm ñu bàyyi tarif yi fa mu nekkoon ñun nag ñu xeex bu baax système maraudage bi waaye dinañu fexe tamit bu fekkente ne fii ak suba ñoom ñëwuñu ñoom jëlal seen bopp décision ñun dinañ jël sant jël décision yi ñu war a jël incha allah rabbi décision yooyu ñi nga xam ni dañuy voyage yi jamono ji transporteurs yi ñu tere leen dox guddi gi te particulier ñu ngi euh, yëpp problème bi li ko indi mooy garage base yi ñu bàyyi ci dëkk bi ñu nekk partout ñii nekk ci ay buntu këru sëriñ ñii nekk ci ay koñ ci ay station foo dem fekk fa garage amuñ ci benn contrôle ñii yàpp duñu respecté affaire yi ku ci tasee wul ak policier wala gendarme mu arrêté la sa bagage war contrôler la nu ngay demee di risque euh, moo tax wax aussi askan wi ñu bañ a ñu jàppale ñu ci parce que tamit bu leen jàppale ñooñu nañu moytu garage yu mbedd yi nañu yokk garage te am na programme boo xam ne ci organisation gare routière yi la bokk pour partout dans le Sénégal ngir contrôle sécurité routière ci ñuy moo di dem gaar tey statistiques yi xëy na mën nañ ko wone mais oto yi nga xam ne ci gaar boo maraîcher la ñuy jógee di dem daanaka doo dégg ay jafe-jafe ci yoon yi ndax dañuy contrôler la ñu war a contrôler balaa ñuy génn mais oto yi nga xam ne guddi gi la ñuy yàpp